président Modou Diagne Fada maa ngi lay jàllee suñu Mariama bi nga xam ne bokkoon nañ ko yàlla na yàlla yàlla na suuf woyof ci kawam yàlla xaree ko aljana euh, loolu bu noppee li nga xam ne moom mooy politiku président Macky sàll mooy soppar ñi béykat yi ñu nekk ay ouvrier agricole ci seen suufu maam ak maamaat ba nga xam ne di ngeen gis ci ay bërëb yu mel ni mbaan ñu nangu suufu béykat yi jox ko CSS nangu suufu béykat yi jox ko sene Sénégindia ñu naan déet ñu bëgg a jël mille sept cent hectares jamono ji jox ko koo xam ne mu ngi tudd Rabi yi lii xew mbaan nag moo xew Ndar moo xew Thiès moo xew Tëngéej moo xew Mbuur moo xew Ñaagis moo xew Ñaasia moo xew Vélingara moo xew Kaolack moo xew fépp il y a une politique délibérée boo xam ne dañuy nangu suufu béykat yi jox ko ay borom barke te loolu du dëgg du yoon la terre à ceux la travaillent bàyyi leen suufu Sénégal ci loxo béykat yi ci loxo sàmmkat yi muy benn ñaareel bi mooy maa ngi massawu di naxarlu nekkinu béykat yi ndaxte nekk béykat Sénégal jamono jii ñu nekk dafa ñaaw te day gën a ñaaw lu tax mu nar a gën a ñaaw damay jël benn missal rek lii document ministère de l'agriculture la bu ngeen demee ci document bi damay jël joxe ni rek benn missal ñu ne président Macky Sall atum deux mille vingt-trois mooy quinze mille villages yi nekk ci Sénégal mu séddale leen fukki junni semoir fukki junni semoir pour quinze mille villages même pas un semoir par village ñu ne c'est avec ça qu'on va sortir de l'insécurité alimentaire ñu ne c'est avec ça que Sénégal di moom boppam ci wàllu lekk mais ku ñuy nax ñu ne 15000 villages dañ koy séddale 5525 Oussine ñu ne 15000 villages dañ koy séddale 2193 ou occidental 15000 villages dañ koy séddale 246 charrettes UCF 15000 villages dañ koy séddale 797 mais charrette fas quinze mille village ñu séddale leen six cent six charrette mbaam lan moo ko waral ginnaaw bi ñu séddalee suñu xaalis palais présidentiel jox wàllam assemblée nationale jox wàllam HCCT jox wàllam conseil économique social et environnemental jox wàllam haut conseil du dialogue social jox wàllam haut conseil xawma du dialogue des territoires jox wàllam les trente-huit ministères ñu ne béykat

yi nga xam ne dañuy jël matériel bi di ko jaay Gambie di ko jaay feneen ak feneen wala di ko louer et ça c'est de notoriété publique ñuy dundee ci kaw baykat yi nañu bàyyi séddale bukki nañu bàyyi séddale matériel agricole bi naan bi sama bay bi sama bay bayam bi sama bay bayam non séddale yooyu moo fi war a jeex déjà lim bi bëriwul ñu koy naxarlu mais ñuy dundaat une deuxième fois ci béykat yi jamono séddale jiw ak matériel agricole en fait jamono traite la pour ñeneen ñu dul ay béykat mais moo tax fokk ñu auditer le matériel agricole fi may daaneele rek mooy ku mu neex nag boo gisee sikkat nga ne tëng la ku mu neex boo gisee sikkat nga ne tëng la waaye li am mooy dañuy dundee baykat yi dañuy jëriñoo baykat yi te loolu dafa war a jeex fi may daaneele nag mooy ah incha allah lii 2024 dina jeex ndaxte askan wi sonn na askan wi damm na askan wi tàyyi na te incha allah askan wi dina leen wan ginnaaw mu neex leen mu naxari leen 2024 c'est fini 2024 terminus 2024 gassi. La parole à notre et à notre collègue Alioune Sall Demba Diop se rapproche. asalaamaaleykum assemblée bi maa ngi nuyu ñëpp merci monsieur le président maa ngi nuyu ministre bi ak euh, seeni accompagnant di nuyu les honorables députés fait monsieur le ministre man euh, dama am problème ak euh, la politique votre stratégie au fait politique au fait à cause des des fortes dépendances bi nga xam ne mooy les produits alimentaires yi nga xam ne moom la sénégalais di utiliser lu tax ma wax loolu noonu parce que je pense que à chaque fois l'état du Sénégal dafay làqatu ci ginnaaw li nga xam ne moom la ñuy woowee les les les chocs exogènes guerre en Ukraine guerre en Russie et cetera ba politique bi nga xam ne moom la Sénégalais soxla en matière de denrées de première nécessité dama gis ne lu bari par rapport à aux politiques que vous voulez appliquer dafa am une certaine contradiction que j'essaierai peut-être de démontrer sur les importations bu ñu gisee euh, en moyenne Sénégal ñëpp xam nañ ne li ñuy utiliser Sénégal lu ci ëpp mooy ceeb. mooy euh, blé moom mooy diwliñ et moom mooy maïs et bu ñu xoolee le taux de blé qui est importé par an au Sénégal en moyenne depuis on est à 594 000 tonnes par an en moyenne bu ñu jëlee le riz ceeb bi on est à 970 000 tonnes Sénégal sax dem na ba dépasser un million de tonnes en 2021 et bu ñu xoolee notre besoin en riz au Sénégal on est à plus de 80 pour cent de notre besoin en riz donc li may laaj ci question boobu mooy. lan mooy cette stratégie lan ngeen di def pour que cette forte dépendance bi nga xam ne mooy les premiers denrées de première nécessité qu'on puisse am ay solution après gis nañu à chaque fois il y a des mesures en fait qui sont prises pour ne ne nañu et mais man je pense que loolu noonu c'est pas conforme ak li nga xam ne moom ngeen di parce que bu fekkee ne li ci ëpp li ñuy dundee dañ koy jéggaani amoo leen une maîtrise sur le sur le sur le sur le prix parce que encore fois Sénégal bàyyi ko loolu mooy première chose La deuxième chose, monsieur le ministre, c'est quand même choquant de parler de, de souveraineté alimentaire. Là, je vous cite. Sur la page 287, S'agissant de l'accès à la souveraineté alimentaire, le ministre dira a reçu des instructions du chef de l'État pour la stratégie avant la fin du mois, ainsi de partir en moment politique de la souveraineté alimentaire pourrait faire l'objet de plus amples débats. Monsieur le ministre, stratégie Amoul D'après cette phrase-là, pour moi, Amolène, Et l'INI, je pense que c'est un aveu de taille et pas des moindres. On nous parle de souveraineté, alors qu'encore une fois, de notre besoin en riz, dañ koy jéggaani et tout à l'heure aussi wax nga ci sa biir wax ni ci rapport bi ne affaire bi mi depuis cinq ans ñi ngi atténué wu on a fait l'exercice par rapport au document au fait qui présenté dans votre site la DPPE gis nañu depuis 2012 bi nga xam ne moom la ñuy jël en blé et en riz dafay wàññeeku biir wax ne la Sénégal dépassé na le million de tonnes importées en 2021 et loolu je pense que c'est un aveu d'échec et un aveu de taille beneen kii bi euh, bu fekkoon ne dem nañu sax ba bay monsieur le ministre wàllum transformation bi wàllum transformation bi encore une fois pour man c'est lié par rapport à la production si tant est que amoon nañ une production suffisante waroon transformation bi gisuñu ko secteur Sénégal alors que maa ngi fàtte beneen affaire sax bo importe il y a une contradiction totale et notoire de la politique que vous voulez mener beneen affaire bi li nga xam ne tey même bu ñu bayoon mënuñu ko emporter encore une fois wax naa ko fii mooy les APE monsieur le ministre APE bi encore une fois il faut ngeen xool nan ngeen ci mën génnee parce que mënuñu comparer le baykat sénégalais bi nga xam ne dafay utiliser des outils rudimentaires ay kajandu et cetera contrairement au baykat européen bi nga xam ne il a 40 milliards de subventions